bi mooy ci démarche bi. Euh, la démarche euh, participative, c'est le socle de la gouvernance démocratique. Quand on fait des programmes de ce genre, euh, yu mel nii boo koy def te muy muy nekk président. a d'ailleurs été toujours rappelé par le président de la République en tant que candidat et même le Premier ministre. Donc on devait associer tous les Sénégalais depuis le début. Puisque déjà, nous avons une société qui aime son pays et nous avons énormément d'experts en la matière. askan boo xam ne ni bëri na ay borom xam-xam allah askan boo xam ne ni am nañu yéene boo xam ne dañ ko jëmale ci réew mi C'est pourquoi vous devriez impliquer tout le monde, car cela est à la fois une démarche de mobilisation et citoyenne. fexe ba li nga fi nga bëgg a yóbbu askan wi nga ànd ceeg ñoom pour mën fa àgg parce que loolu démarche de mobilisation la en même temps citoyenne.